mais alors maa lépp jàpp monsieur le maire rek fii waaw. Il est là, monsieur le maire Barthélémy Diaz, à la cité Keur Gorgui, accompagné frère le maire le maire Ousmane Sonko. le maire Barthélémy Diaz a ngi nii ci biir oto bi. accompagner son frère Ousmane Sonko. ni policiers yi téye nañ leen ñooñu fii ci cité Keur Gorgui barricade nañ yoon bi teel nañ barricade yoon bi tere leen ñu yéeg tere leen ñu mun a egg kër Ousmane Sonko donc le maire Barthélémy Dias moom nee na ñu tere ko ñàkk ko tere dina dem ànd ak frère parce que xawma ndax ban dëkk lañ nekk dëkk boo xamante il est interdit aux gens de circuler parce que deful leneen lu dul ànd ak euh, frère am président Ousmane Sonko pour soutenir ko gis ngeen barrière bu gars yi def fii donc ñu tere ko jàll donc euh, garde corps yi wàcc nañ pour wax ak élément de sécurité yi euh, ñu jaar xool la la ñuy wax ci lu jëm ci lii voilà gis ngeen ko de le maire Barthélémy Diaz a ngi nii le maire Barthélémy ngi nii ci oto bi donc dafa ñëw pour soutenir son frère Ousmane Sonko voilà il est gis ngeen ko. monsieur le maire quelques mots rek ñu gis sa déplacement fii ci cité Keur Gorgui lan nga mën a wax mbokk internet yi lay seetaan. mooy man saay taxaw taxaw ñu démocratie. te mhm. loolu moom di taxaw ci benn xel ñaar day dem ci jàmm dellu si waat ci jàmm parce que loolu mooy yoon leneen lu ñu fi def tamit mooy tooñ te tooñ baax mais dafa ne woon na ñëpp toog seen kër ñi gis yow tam sa déplacement lu tax loolu waaw loolu sympathisant lay waxal ay militant man man du ma sympathisant man allié wu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko nekk ci nam ma ci Ousmane Sonko ñun xam nañ ko moom xeex mooy troisième mandat bu intérêt Sénégal. est-ce que da nga fas yéene ànd ak moom ba biir palais de justice. dañuy ànd ak moom parce que tout à fait démocratie de république nous avons le droit de circuler librement. je pense que kenn wootewul xuloo kenn wootewul xeex bu ñu wootee mooy mobilisation ginnaaw jëmmu Ousmane Sonko mobilisation ngir démocratie ak ngir démocratie parce que lu ñuy woote Sénégal mënatul continuer di bëgg a woote yebel ak nooteel am lu mu namm ci ëllëgu Sénégal ñu fexel la ba doo bokk. wax dëgg yàlla dafa nar a Sénégal. mais est-ce mën a yegg parce que accès bi déjà gis nañ ne gars yi aay nañ pour nga avancer. waaw loolu day day wane rek euh, di. Euh, en euh, ci ñoom plus ou moins mooy ay soo ragalu leen da ngay di dem di dikk voilà su loo wóoree lu ngay def nii yaa ngi ci yoon da ngay bàyyi ñu dem di dikk parce que ñun daf ñu wóor ni que ñun li def nii dañu nekk ci suñu dëkk tamit dañu nekk ci ñoom di dem di dikk loolu kese. alors c'est quoi le message pour le maire de Dakar lan mooy mais à l'endroit de tous de tous mooy résister est un devoir et au besoin les Sénégalais devront savoir qu'ils ont le droit de défendre la démocratie parce que bërki démb Karim Wade la woon démb Khalifa Sall la woon tey ñu ne day nekk Ousmane Sonko loolu lan ko ñoo bañ ko dara nag Macky Sall lu ko mbir bi jaral laa lu ko mbir bi mën a jaral da ko askanu Sénégal déggee noonu particulièrement la jeunesse dama ne jamono ñuy toll nii ragal ci yëpp yàlla la te wax fee tout le monde sait ce qu'il a à faire au gis ngeen ko donc le maire Barthélémy Dias jot na bàyyi ay kàddu nee na dëkk démocratie la ñu nekk te démocratie pour ñu défendre ko il faut ñu mun a taxaw temm taxaw temm nag mënul weesu nga xam say ak say yelleef tout pour mun fexe ba nit yëpp mun ko respecter donc il est là fii à la cité Keur Gorgui dem. ci kër xaritam ci kër frère am muy Ousmane Sonko gis ngeen nu ñu barricadé fii man nag je me demande comment Ousmane Sonko va faire pour sortir tout simplement de sa maison et aller au tribunal ah, parce que man jàppoon naa ni lu fi xewoon mars du fi xewati te lu fi xewoon mars nag mooy tere woon nit mu mën a dem répondre à la convo à la convocation voilà way nii nar a yéegaat nar a ngeen ko de Barthélémy Dias moo ñi taalaat otoom di xool beneen yoon bu mu war a mën a jaare tout simplement ngir mën a egg ci këru kii di Ousmane Sonko voilà journaliste ngi nii ngeen ko de te kër góor gi lañu nekk gis nañ ni issu yu war a mën a dem kër Ousmane Sonko yëpp bloqué de le maire Barthélémy Dias mooñ jaar beneen yoon xool nu muy mën a accéder kër euh, Ousmane Sonko parce que nee na dëgg war a ñu mën a tere ay citoyens sénégalais di mën a dox wala mën a circuler ci seen biir dëgg nday ji réew nday hmm? ji ana direct bi Vous êtes 6000 personnes à nous suivre depuis le Sénégal et la diaspora et là nu ngeen ko gisee nii seen maire seen xarit Barthélémy Diaz jël na beneen yoon fas yéene dugg fii ñuy woowee ci de kër gi nga xam ni kii ñuy wax Ousmane Sonko fii la dëkk Barthélémy Dias eggaat na fii ci kër Ousmane Sonko jaaree ci beneen yoon bi donc euh, gis nañ ni fii tamit defaat nañ fi barricade defaat nañ fi beneen blocage donc wàcc na cooto oto bi le maire Barthélémy lim a ngi nii wàcc na ci oto bi non c'est pas ngeen ko moo ñu nii di dox jëm kër Ousmane Sonko voilà maire Barthélémy Dias la dugg na ci koñ bi dugg na ci koñ bi di dox ñooñu seen policiers yi commencé def barrière ñu ngi seen nii voilà non oh, s'il vous plaît. maire de Dakar, je ne peux pas m'imposer des secrets dans Dakar. Je suis votre patron, moi. Avant le ministre de l'Intérieur, je suis votre patron. Vous savez Je vais chez Ousmane Sonko, je suis député à l'Assemblée nationale. Vous pouvez bloquer la presse, vous pouvez bloquer ma sécurité, mais vous ne pouvez pas me bloquer.

Baar lépp jàpp. am na ku am téléphone waaye donc euh, Barthélémy Dias a ngi nii donc dañ ko bëggoon te wax leen ni man. voilà ne leen ko ne leen ni il est député il est le maire de Dakar mu ne policier yi fii maay fii seen patron avant le ministre de l'intérieur donc nag mënoo leen ma tere circuler mënoo leen ma tere dox biir Dakar wax na leen ko ba ñu dégg ko voilà ne na leen da xam seen bopp ñëpp xam seen bopp parce que mënoo leen tere kii di maire de Dakar de surcroît député mu mën a circuler fii ci Dakar donc nee na policiers yi xam leen seen bopp fii man maa fi seen patron donc euh, ministre de l' intérieur balaa muy nekk seen patron maa fi njekk nekk seen patron donc nag moom xam leen seen bopp boo leen xamul seen bopp ñu mun leen wax seen bopp donc finalement mujjee nañ nangu loolu bàyyi ko mu jàll donc euh, moo ñu taxaw ba léegi yaakaar naa ni ñële dañuy nekk di jël ay instruction pour doog ko mën a bàyyi mu jàll voilà donc le maire Barthélémy Dias ngi nale ci kaw voilà ñu taxaw na le donc ñuy wax ak moom voilà yaakaar naa ni policiers yi dañuy jël ay instructions tout simplement pour nar ko bàyyi mu jàll mais bon yaakaar naa ni gentleman agreement moo waroon am lu tax parce que Barthélémy Dias nee na leen sama sécurité day des ci ginnaaw sama euh, communication dañuy def ci ginnaaw man rek may dox jàll te man rek yaakaar naa ne waroon mën a mën a téye parce que je suis le maire de Dakar je suis votre patron et je suis le patron du ministre de l'intérieur fii ci biir Dakar voilà donc euh, ñoo ngi ma naan ba léegi le maire Barthélémy Dias ngi fële ci kaw donc ba léegi bàyyaguñ ko mu jàll waaw ba léegi ko mu jàll donc euh, xaw ma ban dëkk la ñuy tere député mën a circuler ban dëkk la ñuy tere dëkk député war a mën a dox mais gëm naa ne Sénégal lu fi am moom lii du yëfu réew waaw ah, lii du réew fii dañoo ñëw ci njëkk ak teraanga ci jàmm ak salaam ñëw tout simplement seeti suñu frère seeti suñu xarit seeti jàmbaar bu démocratie sénégalaise muy président Ousmane Sonko. donc fii ci cité kër góor gi gis nañ ni barrières yi bëri na lool gis nañ ni sécurité bi bëri na lool ci lan ci convocation bu ñu war a répondre nee nañ lu fi amoon du fi amaat mais yaakaar naa ni lu fi amoon moo nekk di amaat parce que pour benn nit mu war a tontu convocation ñooñu laajte lu tax ñu indi lii yëpp ci sécurité ba pare tere nit yi tamit di mën a circuler maa ngi dégg sànq benn nit bu dëkk ci koñ bi naan man sama kër a ngi nii mais dañ ko tere jàll ba bari waa ji buux ko waaw donc nag moom yaakaar naa ni lu lu président américain bi defoon ba muy ñëw Sénégal gëm naa ne loolu lañ def waa koñ bi muy lan génnee leen fii ñu dëkk génnee leen seen koñ sachant que fii ñoom ñoo fi jëndoon ay titre foncier voilà Barthélémy Dias ngi fële ba léegi ñu téye ko ci kanam te pourtant jotoon nañ am waxtaanu góor muy lan waxtaanu góor mooy waxtaanu kaddu newoon na leen que man sama sécurité du jàll man sama communication du jàll nu ñuy mën a def rek mooy ñoom ñëpp ñu dellu mais man damay jàll parce que man je suis le maire de Dakar man je suis le député man je suis tout simplement votre patron yaa ngi koy seen nale Barthélémy Dias ngi nale ngeen di seen mu taxaw di waxtaan ak policiers yi ñoom ñii tere ko jàll il est là le maire de Dakar yaakaar naa ne fii explication waru fi am lu dul ngeen bàyyi ko mu jàll dem seeti doomu ndeyam dem ànd ak xaritam président Ousmane Sonko ci tribunal de Dakar ñooñu yokkaat sécurité bi Et là, on voit commissaire Sow bu jëppal ñu taxaw ci dispositif bi Barthélémy Dias ngi ne ci kanam ba léegi commissaire Sow a ngi ni Ouais, je suis là. Donc, et comme je l'ai dit, on toujours le maire Barthélémy Diaz fële ci kaw. moog Djibi Dieye Ndiaye chargé de protocole du président Ousmane Sonko. mu mii ñu bloqué ko fii. bon pourtant waxoon nañ ko ni sa sécurité bu jàllee bu desee bu desee fii sa communication des war nga mën a jàll mais gis nañ ne ba léegi da nga leen bouger da nga leen téye plutôt moo ñu ne ñu téye ko morceau bi kay ngeen ko seenee nii le maire Barthélémy Dias moo ñu nele ci kaw ba léegi ñu téye ko tere ko dugg ñu jot na waxtaan ak policiers yi ne leen man je suis maire de Dakar je suis député mun naa bàyyi sama sécurité mu taxaw fii bàyyi sama communication ñu taxaw ci biti mais mun na leen ma tere circuler war naa mun a circuler fii ci Dakar nga xam ni maa ko jiite maa fi seen patron ku ngeen yaakaar muy Antoine ñàkk jom maay patron am donc il est élu du peuple il est élu doublement il est élu maire de Dakar mais je suis député maire donc de Dakar ñu ne déedéet warul mun a dox fii ci biir cité Keur Gorgui nga xam ni ça représente doublement donc euh, son fief parce qu'il a été maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur mais aussi il est maire de Dakar maa seen ba léegi le maire Barthélémy Dias ñu tee ko fële tey yaakaar naa ni lu ñu wooyee gentleman agreement moo amoon muy lan muy tout simplement mu ne leen pare naa tout simplement pour bàyyi fi sam sécurité pare naa pour bàyyi fi sama communication mais bàyyi leen ma ma romb dem gisanteeg le président Ousmane Sonko. mun ko accompagner pour mu mën a dem këram donc xam naa ni dañuy mujjee couper live bi ñu xaar résultat bi xaw ma résultat laa ko war a mun a woowe xaw ma sax nan nañ ko mën a tuddee